ko depuis 16 heures ñi ngi fi toog 18 heures ba 19 heures fii dafa feesoon dell waaye nag dinga nga am kersa ba buñ la tàggoo doo man lu dul ni leen dem leen waaye yaakaar naa ni comme ni ma ko promettre nee na dina ñëwaat beneen bis boo xam ni dara du xew mu fekk leen fi ñu àndandoo ba seen xol sedd mu ñibbi te yaakaar naa ni aussi bi ma nee day ñëw lii lu ma séntu woon la mais su ma nee damay ñëw Thiès seet si leen te ñu namoon nañ ko lool sax waa Thiès it namm ko ba koo gis dama ko naan exil ak jàmm. di profito tam di nuyu sama naataango euh, maire yi fi nekk sama euh, candidat naataango yi fi nekk muy le maire de la ville Badou Diagne moo ngi nii taxaw sama droite ak le maire du euh, de la commune nord muy Birane géey moo nekk nii sama sama gauche ak le maire Mouride Ndiaye moom it mi ngi nii taxaw ah. waa moo ngi nii taxaw moom tam ma di leen jaajëfal bu baax euh, di wax nag ñun li ñu tax a jóg mooy defar ñun duñu ay politicien mais daf réew mi dafa toll foo xam ni duñu toog rek di seetaan rawatina suñu commune est bii ñu koy caax-caaxee duñ ko nangu ndaxte booy xool 12 ans su ma yeboon ni même personne yi rek ñoo ko yor toujours bu jot muy am lu ñu naqari yaakaar naa ni nag tey ah dina am fulla ju toll ni ah ñu jóg nag dem jëli li ñu moom yaakaar naa loolu leen rappeler toujours rek ñun nous sommes quinze quinze candidats lañu man rek man maa si jigéen kon man maay candidatu jigéen ñi di wax nag jigéen ñi ñooy fale ak ndaw ñi kon nag yaakaar naa ni jigéen ñi tey jii duñu taxaw di seetaan wala ñuy fal ñeneen di baseen moroomu jigéen doo leen ko nangu de waxaat leen doo leen ko nangu de jërëjëf te yaakaar naa ni bu ñuy wax jigéen jabootam moom moo tax ñun buñ dee sonn suñu jaboot ñoo tax te duñu seetaan ñu noot ñu noot suñu njaboot looloo waral ñun ñu jóg def nañ 22 euh, quartiers yépp foo ci dugg jàngoro ji benn la problème mu assainissement rawatina cité Senghor gi problème mu assainissement éclairage problème mu santé ah vraiment vraiment surtout jigéen ñi ñu ngi dund lu metti da ngay dem si kër ñun la ñun de ñoo ngi nii suñu fóotee dañ koy taaj fii ba guddi lañ koy tuur kon nag loolu metti na lool lool lool lool lool si jigéen loolu metti na waaye nag yaakaar naa ni pesum kanam boroom moo koy fajal boppam da ngeen war a jóg takku te xam ne ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo ñooy takk sér te yaakaar naa ne nag doo leen seetaan combat bi ngeen ci des gannaaw loolu doo leen ko nangu may wax ni le 23 janvier ngeen xëy fajar yéen jigéen ñi parce que fajar ngeen tàmm di jóg loolu ku ko weer dina dem marché xool jigéen ñi ban heure la ñuy jóg marché bi metti lool sax lool lool ku ñu jox 3000 nga yokk ci 5000 nga ndugg te doo am lu la gënal mi ngi noonu kon nag man mii jigéen maa xam fay metti ma fas yéene faa teg sama loxo ma tàllal ñëpp loxo di wax ni le 23 janvier na ñëpp dem voté ji bu neexee yàlla voté la grande coalition gëm sa bopp bi nga xamante ni man mii man maa ko jiite man doomu Cité doomu Silma doomu es man mii maa jiite la grande coalition di wax ni nag ñun duñu nax kenn ñun duñu nax kenn foo si dugg luñ lay wax dañoo sonn ci naxe yi waaye nag yaakaar naa ni ñun ñiy naxe duñu ñun ndax ñun diguñu kenn liñ leen wax mooy nañu ànd dem liggéey soppi suñu gox loolu lañu wax te yaakaar naa ni ah liñ leen wax ni mooy li am di leen wax ni góor góorlu leen ba le 23 yàggatul ay fan moo ci des le 23 au soir buumu buumu buumu nooteel yi dinañ ko dagg dinañ ko dagg incha allah ñun ñu jël suñu lañu moom toog gérer suñuy commune ànd ko ak yéen ànd ko tam ak jigéen ñi maa ngi nuyuwaat ñëpp leen jaajëfal di jéggalu ci kàddu guddi di leen ñaanal ngeen passé une très bonne fin d'année